mais gàmmook ak màggal ak ay cant du yëfu gouvernement yëfu kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñoo ko amee la te ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que bi mbas mi jógee ba léegi taxawaayu kilifa diina yi dafa rafet dafa rafet lool parce que seen kàddu jóg na bu baax seen taxawaay mat na te ñu ngi joxe tegtal ak ndigal pour nit ñi sàmmonteeg li nga xam ne mooy digle yi donc li nga xam ne moo fi des mooy Sénégal am na position bu baax bu ñu ko tënkaleeg yeneen réew yi méngaleeg yeneen réew yi ci àddina parce que bokk na ci ñaari réew yi nga xam ni ñoom la ñu jiital ci ñi nga xam ne ni ñu ko yore yor bi rafetlu nañu ko loolu nag li ko waral mooy li président de la république def joxe direction jël décision yi ci wu app bi génne moyens yi pour ñu faju parce que damay fàttali ni mbas bi lu mu tar tar tar ku mu jàpp kuñ ci soupçonné ku ñu ko yaakaar ku ñu ko ragalal buñ la quarantaine wala buñ lay faj dërëm di ci génn état di Sénégal moo joxe lépp mooy joxe garab mooy faj mooy def lépp donc loolu détermination la bu njiitu réew mu génnee ak ni mu ko doxalee ci wàllu rassemblement yi ci couvre-feu ci examen yi ci école yi donc loolu ñun moom la ñu wàcce fii ci suuf pour yeggali ko gàcce ngaalaama jigéenu Benno ñi ko xalaat ba nu mun ko def tey ñaan yàlla ñu gën continuer rek sàmmonteeg li nga xam ne moom la ñu digle ñu mucc ci parce que yàlla nañu dimbali ñun ñëpp ba ñu mbas mbas mi loolu la ñuy ñaanal ñëpp merci